monsieur le ministre je félicitations pour ma parole dama dem monsieur le ministre je ma fa à ma gis fa une usine bo xam de day defar ay je ma de di wax yëre fu ngeen koy ñu ma États-Unis monsieur le ministre ndax man dama daf ma Sénégal ci jam da ngeen a entreprise war jam ñaajo du ay fo jam lu concret la lu réel la yéen a ngi fay def liggéey bu am solo monsieur le ministre loolu dama la féliciter la parce que euh, sa plateforme bi li muy ci ay monsieur le ministre nit ñi dañ ko war war parce que lu réel la ndax bu ñëwee fii ñuy toog fii sama mbokk yi ñu jam ñaajo li fa sénégalais di doole monsieur le ministre da plateforme bo xamné plus de 1000 employés nek fa di liguey monsieur le ministre loolu luñu wara fessel a fesal la beneen bi moy monsieur le ministre lima lima li bëgg wax moy dans le département de Linguère bis bo fa défé unité de laitière yow politique ce ministère lepp ngay réussir monsieur le ministre est-ce que xam nga né dans la zone sylvopastorale li yak ci méw ci an ci hivernage bi bul faté né ñepp bu bu nawet bi ñëwé nak yépp dañuy ñëw dans le département de Linguère ak range de Dolibi bi monsieur le ministre loolu bëgg nañ nga jàppale ñu ci leneen li may wax dama yor benn contribution bu ndaw monsieur le ministre xam nga Sénégal dañuy wax chaque jour réew mi doxul réew mi doxul réew mi mais réew mi bala moom mën a dox monsieur le ministre sa ministère ñu gën la dooleel ñu dooleel la dooleel gi mooy boo jëlee commerce bi nga xam ne ci laa gën a xame ci laa gën a yëngoo chaque semaine minimum six avions yu jóg fii ci Ndakaaru AIBD avion bu départ dina yóbbu des sénégalais plus de 200 sénégalais yo xamné total bi yépp day nekk 1 milliard yu def sen poste dem di uti marchandise mais chaque année Sénégal chaque semaine Sénégal di génne 1 milliard et quelque 2 milliards et quelque réew mi di gëna di gëna naxas en kon nak monsieur le ministre yow dañ la wara a parce que xalé yoyu di jaay wala commerçant yoyu di jaay wala industriel yoyu di jaay dem di jëli yóbbu xaalisu réew mi andi ay yéré andi ay dàll indi ay sac réew mi day gën a naxas loolu monsieur le ministre da nga ko war a xool ñu installé usines yooyu ci réew mi ñu ban ñu man di ñun tamit ñeneen yeneen réew yi di ñëw suñu réew mi di fekk ñu fi suñuy usine ñu leen di jaay li nga xam ne moom la ñuy jëggaani que ce soit Chine que ce soit Dubaï muy États-Unis monsieur le ministre loolu laa bëggoon nga xool ko réew mi gi ñuy wax ci Macky Macky gi loolu bokk na ci liy Macky li réew mi monsieur le parce que lii génn ci réew mi dafa bari lii génn ci alal dafa bari lii génn te sénégalais yi nanguwuñu ànd booloo taxawal dara dañu xaar état di defar usine mais état dafa mën a ñëw xool secteur bu nekk mu ne naa def usine bii pour sénégalais yi man ci liggéey état mënul loolu sénégalais yi tamit ñoo war a nangu buñ gisee ne lii war nañ ko taxawal ñu associé jël seen alal parce que y' a des milliardaires yi des milliers de milliardaires yoo xam ne mën nañu créer des usines xale yi di ci mën a liggéey ngeen tamit parce que promouvoir bi ngeen di usines yi ci tamit sénégalais yi ñoo ko war a gëm mais ñu né japp né man dama wara def individuellement sama yëfi bop ké def individuel sa yëfi yëfi boppam réew mi du dem li ngeen ni promouvoir ci ci ci ci petite et moyenne entreprise yi wax dëgg yàlla monsieur le ministre gis nañ ko te rafet na ñu mënuñu lu may encourager la ñun dañ la fonk parce que dañu gis même localité Louga gi ñu bokk la nga fay def monsieur le ministre di booster jeunes yi di booster femmes yi man moo tax ma fonk la